am ah, gagné nañu élection présidentielle di ci premier tour yi. xalifa ah, euh, Amadou Ba di mandataire bu Diomaye li mu wax Hadj Mansour da koo da koo def benn brèche ci biir bi muy tàmbale ay kàddoom. lu jëm ci wàllu euh, système de parrainage bi ak euh, méthode bi ñu ko doon defee xëy na bëri na ci lu ñu war a xoolaat loolu nag day dëppoo li Amadou Ba wax te de ni xoolal ñoom. bi leen Ousmane Sonko joxee ndigal ni leen parrainé leen parrainage citoyen Bassirou Diomaye ci la nga gis bi kon engouement boobu am ak ampleur bi mu am ak détermination bi ci feeñ nit ñi door a am guubu ni ñi ngi ci pré électoral ñi ngi dund li nga xam ne mooy euh, période li nga xam ne mooy campagne de parrainage ah. euh, jamono boobu xalifa moom njort na ni waroon nañu mën a am résultat lu ëpp loolu ndax euh, gis-gisam la tey am na ci connaissance te mi ngi woon ci biir beneen bi ci desit mooy wàllu parrainage boobu kàngamu politique ñi nga xam ne ay géant lañu woon ci politique seen tour doonoon ci monument boo xamante ni yàgg nañ ci tey bu ñu demee ba am benn pourcentage bi ci wàllu résultat maam Khalifa tey ak yeneen candidats yi nga xam ne tey fexe nañ ba jàll état bu parrainage ñu rekalewaat yeneen candidat ci état bu parrainage. kon ñële fan la ñu jaar. ci fichier électoral boo xamante ni kenn ku ci nekk la nga wax ni am nga ko ci parrainage nga ñëw ñu dem ci urne yi nga am résultat boo xamante ni moom loxo dem na gémmiñ danaal la nga waxoon ak euh, foo jaar ba am ko.

changé mm-hmm. waale système yooyu yëpp jamono ji dañ cee toll njort nañ ni balaa ñuy eggaat ci ay échéance électorale loolu ay jéego dina ci amaat ak gouvernement bu bees bi ak équipe yi àndal ngir liggéey ba yitte mm-hmm. la ñu miinoon mooy jël ay données personnelles lu jàmbur ci beneen anam boo xam ne amoo ci accord am pour glorifier wu pour wane yow sa mentoru politique yaa ko représenté si tel gox jox naa ko nangam ci ay parrainage mm-hmm. ci ay données personnelles lu jàmbur yooyu xalifa dañoo bëgg mu jeex ndax bari na ñoo xam ne tey day ñëw ci ay groupement des femmes ni dañ leen di financer seen photocopie carte d'identité laaj leen ko dajale ko dem joxe ko ay nit ak koo xam ne day ñëw ni day financé ay nit dajale ko ba pare laaj wax na ko di uti benn politicien bu mag ca kaw boo xam ne da koy wane ni man am naa mbooloo am naa ay parrainage mën naa la jàppale fexe ba benn cérémonie de remise mu def ko mobiliser ay nit ñëw jébbal ko parrainage naa te or ko parrainage yooyu da koo jënd wa illaa nam ko amee ak nañ ko war a collecté bokkul loolu nag dañoo soxla mu jeex parce que ay données personnelles yu jàmbur la soo koy jël di ko jox nit ka ngay joxe borom données yooyu est ce que moom foofu mooy foofu mooy choix wam yooyu yëpp ay tooñ la ak ay mbir la yoo xam ne dañoo bëgg ñu dindi ko ci ba mu set résultat bi nag li mu feeñal dafa bari am na ñoo xam ne moom jël nañ seen i saak ak seen bagage te génn ci géew politique bi toog doon ay observateur ak ngemb seeni gone ñu mën a wàcc ci làng gi wa illaa loolu bu amul moom nañ jàpp ne ñoom noppi nañoo am dara ci wàllu politique ci réew mi ndax réew mi dafa am beneen xar kanam ak beneen destination bu mu fas yéene jël bu bokkul ak bi mu jëloon deux mille mille neuf cent soixante ba jamono ji. voilà justement ajma su sànq yaa ngi koy wax ci mbirum comme business politique bi ndax dafay niiru ak lii boo xoolee